seule édition 13 000 pour convaincre monsieur Mbaye Dièye fondateur directeur général de la société Sen Fournisseur Général. oui donc waaw prétexte euh, invitation bi monsieur Mbaye dafa am benn prix. Mhm. mu gagné mhm. le mars dernier. à Genève. oui salaamaaleykum monsieur maaleykum salaam monsieur Fall ñu ngi lay remercier ci invitation. Euh, bi. voilà balaa ñuy dugg ci merci bon ñun ñooy euh, SFG Sarl seen fournisseur euh, général nekk kilomètre 4 virgule cinq bon di évoluer ci lépp loo xamante ne moom mooy pièce de rechange li jëm ci chariot élévateur. ak grue mobile euh, groupe électrogène di def location di liggéey ci kër yu mag euh, fii euh, lu mel ay mine GCO ICS vraiment am nañ ci lu bëri ñoo xam dinañ liggéey ak ñoom dal voilà donc lii bi nga gagné. Mhm. naka nga def pour ci. voilà compétition boobu d'abord. merci compétition bi euh, à vrai dire ñoom yëguñu sax ñoom bi ñuy choisir. Euh, parce que ñi ñu mën ñu mës jox prix bi ñoom ñoom ñooy voté sur 179 pays euh, ñu xool euh, ñaata pays lañ ci jël muy 80 pays yàlla def nag ñun ci biir 80 pays ñoo ci représenté Sénégal donc ñoom ci côté qualité bi lañuy ñuy xool satisfaction client fournisseur vraiment partenaires yi vraiment employés yi ma xool sa qualité matérielle aussi donc kon aussi dañu fonk suñu qualité matérielle ak entretien bi ak pièce d'origine yi ñuy jaay client yi vraiment si lañ ñu ràññee ñoom binduñu lettre xamal que nañu vraiment boole nañu ci ñi nga xamante ne daal ràññee nañ ne ci àdduna bi ñuy gën a def qualité la donc vraiment ñu ciy sant yàlla aussi di gërëm di sant ñi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci suñu ginnaaw yàgg ñu jàppale di ñu ñaax pour vraiment ñu liggéey liggéeyu qualité. donc loolu euh, est-ce que mën nga waaw wala bon prix bi moom moo nekk ni euh, en or la donc ñu joxe ñu ko depuis Genève donc mu nekk loo xamante ne boo gisee ñu def M bi I bi T bi moom mooy euh, innovation technologie management donc aussi ñu boole ko ak benn certificat euh, certificat bi moom moo nekk nii donc vraiment pour wax la ni que de jox nañ la prix bi Euh, mais vraiment dañu bëgg nga continuer def euh, liggéey bu rafet bon président bi ci boppam aussi vraiment euh, ne ñu xam na moom fi SCFG jaar ba agsi fii donc moom pare na vraiment pour lépp loo xam ne moom mooy tax ñu maintenir suñu qualité pare na pour jàppale ñu si muy président BID bi monsieur Prieto donc en même temps di saluer geste bi président bi def di ko remercier bind nañu lettre de félicitation ak euh, ambassadeur euh, Bassirou euh, Sène bi nekk Suisse vraiment mu dal ñu recevoir ñu orienté ñu vraiment kontaan trop vraiment ñu leen remercier ak équipe bi yëpp ko vraiment et noonu la demee. waaw mais prix bi ñu ko joxee parce que dafa ànd mhm. xaalis ou c'est juste un bon jàpp naa ne que ne li mu àndal moom moo dàq xaalis parce que tey mun nañu wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon formé. vraiment bi ma leen ko yóbbulee ngi si bëri nee nañ euh, cadeau bi ma leen mës jox yëpp bii moom moo leen ci dàqal parce que bii dina war a nekk vraiment liggéey bi ñu doon def am na ñu ko rafetlu surtout mu nekk international te tamit ak ñaanu doomu aadama yi euh, vraiment ak kilifa yi am na ñoo xam ne dañ ma doon woo ñaanal ma ne mu ba yàlla nga am corridor donc tey bu yàlla defee aussi ñu am euh, trophée boo xamante ne c'est reconnu au niveau international vraiment dañ ciy sant yàlla di dolle góorlu bon am tamit ñoo xam ne vraiment ñoo nekk suñu ginnaaw ànd ak ñun euh, di liggéey euh, vraiment du ñun rek ñun ñoo ko liggéey donc équipe la donc di gën a ñaaxaat équipe bi fexe tamit di gën a satisfaire clients yi euh, vraiment ñu gën ñu ràññee parce que dañuy ñaan yàlla nag dem ba am platine bi dem ba am diamant bi vraiment loolu bu suñu vision daal voilà. léegi lan mooy changé yow ci sa business avec ce prix. bon euh, tey dafa mel ni tey léegi dañu yàgg bëgg engagé wu ci lu jëm ci ISO 9001 euh, parce que tey kenn ku bëgg ku nekk bëgg nga ñu certifié la xam la ci àdduna donc lii dañu jox engagement xam nañu da ngeen war a respecter qualité bi continuer ci donc qualité boobu vraiment dañ ciy liggéey ak équipe bi yëpp. bu ko defee ñu ñaan yàlla euh, ñooñu aussi am satisfaction ñu mën a amaat beneen prix vraiment gis na que ne changement bi mu ngi yokk client yi ñu gën a am mbégte bon di interpeller état bi aussi ci biir lool parce que ñun entreprise privée yëpp dañu soxla ndimbalu état bi bu ko defee li nga xamante ne moom mooy qualité boobu ñu gën ci liggéey vraiment euh, suñu parc matériel aussi ñu gën ko mën a euh, defaraat et puis ak espace bi donc parce que yàlla dafa def ne partenaires yi fii ñëw yëpp wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee bu ñu duggee ci biir SFG vraiment dañuy rafetlu vraiment nañu defaree suñu bërëb donc euh, benn moment sax am na ñoo xam ne vraiment gisee ñu ko noonu dañuy wax ne que ne vraiment li yàq la ak yooyu kon tey lii bu ñëwee peut-être am na ñoo xam ne dootuñu gis ne que ne investissement boobu ñu doon def di defaraat suñu ay bureau vraiment di gën a euh, xool naka la ñuy mën a accueillir clients yi ak yëpp donc euh, dañ ci sant yàlla daal. léegi yaa ngi nii da ngay interpeller pour mu jàppale leen. waaw ci ban façon ci ban wàll. bon mooy euh, ni li ñu wax rek parce que tey peut-être moyens yi ak banques yi des fois garantie yi dina des bon peut-être capacité bi nga bi bi nga bëgg a yore dina des dañuy demee ak moyen de bord mais malgré ak loolu. ñu ngi fexe bay satisfaire client même bu fekkee ne euh, benn matériel boo xamante ne matériel bu présentable la parce que suñu liggéey yi ñuy def lu mel ni grue dafa nekk loo xamante ne investissement bu luur la donc euh, pour nga am ko nekkul lu yomb parce que fu nekk lañ jaar kër kër yi tëb ñu tëb am grue donc dañu commencé ci li nga xam ne mooy pièce de rechange li nga xam ne moom mooy chariot élévateur ba agsi ci li nga xamante ne moom mooy grue mais yombul. donc tey demande yu ñuy am euh, mënuñu ko satisfaire non bu ñu sañoon vraiment mu nekk euh, loo xam ne euh, li ñu clients yi di laaj yëpp dinañ ko am wala boog ñu am à 70 pour cent te loolu état même bu nekkul ne côté financement aussi peut-être mën nga am garantie ci côté matériel état am na benn structure bu mu créé mooy forme FONGIP waaw waaw genre garantie yooyu est-ce que yéen jot ngeen jokk ak ñoom pour jàppale seen business voilà bon effectivement kooku euh, financier bi moom moo ngi ci def na mu ngi mi ngi avancé bu baax te aussi ñu ngi ñu ngi am yaakaar parce que aussi am na chantier yoo xam ne à vrai dire mu ngi fiy am lu mel ni euh, francophonie bi euh, sollicité nañu def nañ fa ay liggéey liggéey yoo xamante ne vraiment ci côté manutention la jëm mu nekkoon ak société bu ñuy wax Souma donc Olam Sénégal aussi bu ñuy liggéey liggéey nañ fa. donc presque def nañ fa six mois donc yooyu yëpp ñu ngi ci euh, sant yàlla quoi mais des fois matériel bi bu amee effectivement financier bi mi ngi ci mi ngi ci loolu daal ñu am yaakaar quoi. waaw ñu am yaakaar donc euh, te say clients yu gën a ki mag yan la état la kii yan la. bon peut-être état dina am benn côté bu mu ci am mu mel ni lu mel ni ICS parce que mine yi dañuy liggéey ak ñoom bu baax euh, lu mel ni GCO. waaw souvent daal euh, fabrication euh, extension donc construction ñoom ñëpp dañuy liggéey ak ñoom ñu ñuy soxla dañu bari daal waaw donc euh, aussi vraiment mooy ñi nga xamante ne souvent ñu ñuy consulter te bëri na si ñoo xam ne balaa ñuy consulter keneen day fekk ñun suñu matériel disponible waaw donc bu matériel bi disponible rek yaakaar nañ ne daal dinañ gën a mën a développer daal te tamit dinañ mën a yokk suñu ay employés parce que lu mu dee dee peut amoon nañ quarante personnes euh, te dañu bëgg li nga xamante ne ñu ngi koy liggéey euh, ñu ngi ci collaborer aussi ak seen euh, SENCUP ak directeur Zakaria Sall ak. école waaw centre de formation parce que aussi tey métier bi ci côté mécanique bi ñun des fois ci suñu biir liggéey dañuy soxla technicien léeg léegi ñu déplacer technicien fii ba Europe fay ko cher. presque 500000 par jour jëndal ko billet avion fay hôtel bu ñu sañoon jeunes yi nekk fii vraiment mu nekk liggéey boo xam ne dinañ ko mën parce que dañuy ñaan yàlla logement yi di war a ñëw logement associé ñoom ñëpp tam ñu am moyen pour am ci kër yi bu ko defee ñun aussi ñu yokk vraiment suñu ay employé Sénégal bénéfice bi donc moo tax aussi ñuy encouragé président ci euh, plan Sénégal émergent rek. waaw Mbaye mel ni yow. Euh, mhm. autodidacte mhm. nga. Mhm. Euh, jaaroo école mu am mhm. diplôme. waaw euh, voilà quoi. dëgg la euh, comment ça se fait a pas la muy vraiment. ci bi. pour bi nga xamante ne aujourd'hui ñu koy ràññee ci dëgg la bon mooy gëm sa bopp vraiment ak jubal bëgg li ngay def fonk say kilifa. vraiment bañ a am caaxaan ci dara suñu borom aussi dimbali la. donc euh, ak ñi nga xamante ne vraiment ñoo ngi fi di jàppale ay nit ñu am kóllëre ñoo xamante ne dimbale ñu woon nañ leen démb tey doog a ñëw donc euh, jeunes yi aussi toujours ci loolu lañ leen di ñaax parce que nit il faut nga bëgg li ngay def gëm ko boo ko bëggee gëm ko résultat ñëw ci moo tax ñu leen di wax ne lu mel ni école seen Sencupé vraiment ñu dem inscrire parce que pour ñun tey nit ki li mu mën a am ci métier mi est-ce que mën na ko am ci leneen. donc ñun mu nekk loo xam ne war nañ ko mën a def euh, première choix vraiment parce que résultat mën na ci am parce que ñun tey bu ñu demee ba embauché ñoo xam ne mun nañu wax ne ñoo gën a placé pour wax ko jàng ji woon nañ France def fa ay sept ans tey ñu ñëw di liggéeyandoo ensemble pour wax ne rek nekkul ne mbir mi il faut nga dem euh, université wala nga dem euh, réew ma jàng ji donc da daan sa doole suñu borom moom moo yor li ci des bon ñu ànd liggéey ba yi aussi euh, nga respecter say engagement ak vraiment euh, sa promesse bu ko defee aussi keneen boole la keneen donc euh, foofu la ñu jaar yombul nag. quoi yow nga. xam nañu xale yu bëri ñu ngi toog amuñu liggéey. voilà kii nga am par rapport xale yi. bon kooku aussi ñu ngi ciy liggéey à vrai lu mel ni ak mouvement deuxième ay ASC benn braak. président bi Asphal ak ñoom gaajo vraiment euh, waa benn braak yëpp ba ci Dakar aussi bëgg nañ vraiment euh, sensibiliser leen euh, jeunes yi nga xamante ni liggéeyuñu ñu fexe ñu dem inscrire ci école yooyu parce que normalement nit ki boo demee jàngi ji métier trois ans vraiment war nga mën a yore sa say waa kër quatre ans aussi waajur yi aussi mënul noppal ko parce que bëri na si ñoo xam ne sonn nañ tey da gis yenn jigéen ñoo xam ne dañuy yow quatre heures du di dem géej di uti ji ay jën ak yooyu donc jeunes yi il faut ñu fexe vraiment jël relève bi ñëw liggéey yore seen kër bu ko defee ñu mën a am seen këri bopp ku nekk loolu lay ñaan parce que vraiment ci loolu lañ leen di woo ñoom ñëpp te ñu ngi ci ñu ngi liggéey daal voilà. donc merci. Mhm. Euh, ñu ngi leen di jox rendez mhm. merci.